أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ngi ci seen kàddu imaam fii ci juma Scat Urbam di leen nuyu bu baax di leen ndokkeel ci fan yi ñu ne muy fukki fan yu mujj yi ngeen xam ne fan yu yàlla barkeel la barke boobu yal na ko yàlla wàccee ci ñun ñépp ci àdduna bi yépp ngëneel la yiw la te suñu boroom it li tax mu jox ko xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggal leen yiw la kon yiw woowule yàlla nañu suñu borom dëppale ak moom daal moo taxoon mu ne na ngeen ko seet ci fukk yu mujje yi incha allah ci waxtaan yi di ñëw danañ ci ñëw ci guddi googule mbokk yi defe naa fi ñu toll ci réew mi yéen ñëpp dégg ngeen li nga xamante ne mooy kàddu njiitu réew mi ci li mu waxoon ne nañu ajandi julli ci jàkk yi muy dajale wi fi mu ko teg mooy ginnaaw ba mu dégloo waa kër docteur ñu xelal ko ne ko kat jàngoro ji fi am daje beñ te nit ñi macha allah seen xër ci diine jàkk yi juróomi yoon ci bés bi julli àjjuma bu ñëwaatee it mo ña fay daje daanaka pour lim ko du yomb loolu moo taxoon mu ne bon nañu ajandi julli mbooloo yi daje yi gisoon ngeen même marché yi ñu wàññiwoon woon bi ñu doon doxee transport bi gisoon ngeen ñu wàññi ko yooyu yëpp tëj école yi ba gis nga fan yii rek xanaa ñetti fan ci tey wala ñeent mu ne bon nag jàkka yi waxoon nañ ne bu ñu ci daje léegi nag man ngeen ci daje waaye dañu ñëwaat tey rek pour loolu ñun ñi ñu ko séqal ñu ngi sant yàlla di nuyu ñëpp wax dëgg yàlla te di leen jaajëfal te loolu mooy nuyoo mooy ziyaar mooy ñaan imaam ratib Thierno Hamidou Bane mu ngi am kontante bu baax mu ngi leen di nuyu di ñëpp nee na mu ngi nemme ko ne rek te incha allah xam naa it moom dana am waxtaan wu mu defax mbooloo mi incha allahu rabbi e, feex e, fan yu néew benn wala ñaar bu kon collège yu imaam yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom it di leen ñaanal yàlla yàlla defal ñu tawfiix kon daal bennoo gi yàlla na gën a jëm kanam incha allah te yàlla ak ñu dimbali daanaka li réew mi di tëral kenn jiituwu ci loolu ñu sante ko yàlla ndax askan wi yëpp jàpp nañ ci parce que bëgguñu lu lor askan wi waaye lépp nag dañ koy teg ci diine bu diina ñëwee ñu indi ko ci ñoom waxtaane ko ñoom ñu wax ñu li ci àddina wax maanaam bu dee lu jëm ci wàll wér-gu-yaram la ñu wax ñu ko ñu jëfe ko kon nag sant yàlla bi ñu tolloo fii tey ñu ne ubbi wat nañu ko waaye ubbi bi nag daf ñu ko jox bàyyee ñu ko waaye ku ne gis na jamono bi mu ñu ko joxee eh, xëj na ku ko wax walla ñàkk ko wax gënalu ko def na ko waaye gënalu ko te it ñay nekk kër docteur it neexu leen ndax njiiti réew mi bu waxee xëj na ñoom danañ wax seen xalaat waaye kaddu gu mujje moom moo ko yor waaye ñoom ñi ne ci sur le terrain di sonn di jànkuwante ak ñi yore doomi jàngoro bi ak yeneeni feebar yoo xam ne mu ngi fi woon di leen xaar amatuñu vie de famille ñu wax dëgg yàlla war nañ leen soor xaw ma ku leen sóorul waaye lislaam sóor na len ñom wa ko docteur gis nga ponk l'islam yi même cinquième pilier bi di acc bo préparer won di dem l'islam dana lan saytul sayaram ci keur docteur bu ne la bax na nga dem bu ne la baxul do dem ta pourtant ponk l'islam la cinquième pilier muy acc l'islam me déglu ko mom médecin bi lu mu la wax noonu la bi nga xamante ne mooy troisième pilier muy koor l'islam ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin kii dafa tawat mu ne la déglul kër docteur li mu la wax bu ne la doo oor doo oor kon ponki l'islam il est cinq piliers ñaar yëpp dana laan déglul docteur lu mu la wax loolu ngay def waaw mbokk yi kon fi ñu toll ñun dañuy déglu kër docteur parce que l'islam loolu la sant lislaam loolu lañu sant la taxoon ñu ne nañ ajandi julli juróom yi la taxoon ñu ne nañ ko ajandi loolu dafa yokk dafa yokk rassemblement yi taxoon dafa gën yokku kaay yi dafay gën a yokku xattaa sax leneen lu ñuy gën a tiital mooy ñi si ñàkk seen bakken dafay gën a yokku tey jii defe naa bu ñu juumul fi ñuy wax ak yéen ñu ngi si ñaar fukk ak juróom ñu génn àddina ci bu euh, bëccëgu tey bi kon loolu jar nañu taxaw seetlu kon loolu moo tax ñun bi mbir mi amee macha allahu rabbi niñ ko doon defe di ko péncoo si lañ waxtaane xelaat yi xelaat yi ñii wax ni ñii wax ni te ñépp benn wax la wax mooy que ne ah loraange gi mu ngi fi dafa gën dolleku kon nag daal bu ñu manee mënee moytandiku moo gën ne nag ah décision bi nag si yéen la ne kon bu ñu doon ubbi imaam Thierno Hamidou Bane bu ne nañu julli dañuy julli waaye moom du ko def day wax lan nga xelaat lan ngeen xelaat kon ñun ñëpp lay wax lan ngeen xelaat ñu waxtaane ko li ñu wax mu dëppoo loolu ba ni may waxee yéen nii léegi rek lañu ñu ci téléphone ci waxtaan lu mel nii tey kon dëkk ñu ne bon kër docteur koo wax mu ne la mbas mi mu ngi fi dafa gën a yokk ñoom seen jargon li ñuy wax pic tollooguñu fa mooy dem na ba sa combaxtal la war a wàññeeku nag pour jeex ci kàntanu yàlla tolloogul foofu waaye yàlla na gaaw tollu fa waaye ndax nit ñi am jàmm delluwaat si seen sago yàlla na yàlla wéral ñépp ñu ne bon nag kon jàkkay nit ñi namm nañ ko weeru koor wi gis nga nit ñi ñuy dawe en masse ci jàkk yi jàppukaay yi ci jàkk yi est-ce que mën nga ko surveiller moket yi boo ñëwoon ñoom kër docteur dañ lay wax ne la ku si julli woon sëgg su jóot ti seeli mbaa nga saxat te doomi jàngoro bi mu ngi woon ci yow mën nga ko fa bàyyi mu def fa juróomi waxtu ba lu ko ëpp waaw loolu boo julli woon tisbaar nga bàyyi ko fa tàkkusaan ba timis xattaa ba geewe ku fa ñëwaat sëgg foofule wala lu ko jige virus booba daf lay duggaat lépp luy tissi rek ñoom noonu lañ ko waxee te moket yii nag ci gën a mën a téye doomu jàngaro la ñu si profité mbokk yi boo xoolee jàkk yépp daanaka léegi mokket lañ fa def ah macha allah waaye nag am na ay risque lu baax lu ne da ngay xool conséquences yi lañ la risque yi mooy dañ ko war di désinfecté ngu ñu manul bés bu ne it comme juróomi yoon lañ fay dugg ci bés bi mais ayu bés bu ne loolu dafa valable ci jàkk yépp yu am moquette boo ko deful ayu bés bu ne it nga def ñaari ayu bés wala fukki fanax juróom yu ne waaye bés bu ne nag moom danga nga war bale désinfecté bi nag mooy loo xam ne danga fay indi produit buy rey bépp jàngoro wala bépp microbe bu fa ne woon loolu lay jariñ ndax moquette yi baaxul ci ñi am asthme ñi amee feebaru saxat ah yeneen ah yeneen bëgg nañ ko lool waaye nañu ci bàyyi xel mbokk yi kon nag su ko defee loolu moo tax bi ñu dégloo kër docteur ñu wax ñu ñu gis ne mbir maa ngi fi ba tey te delluwul ginnaaw te njiiti réew mi déggu leen benn yoon mu ne lañ doon ragal dàqu na kon nag mën nañ delluwaat waaye daf ko def ngir ñàkk pexe parce que ñu ñëpp gis nañ temps yi dëkk bi yëngu-yëngu yi fi nar di am xëj na moom muy daw fitna ci loolu

ñu ngi def suñuy zikkar ñu ngi def suñuy lépp ku si fanga ne sa kër da ko fay defee yàlla moo njëkk a wax ne situation yi bu amee na ngeen moytandiku jàkk yi na ngeen moytandiku jàkk yi saxaaba yi def nañ ko ci taw def nañ ko ci ngelaw waaye virus nag feebar kooku moo gën a tar te doomu aadama dafa bokk si cëslaayu diine muy sàmm dund doomu aadama kon da kuy sàmm dund doo ko jël di ko sóob ci lu koy alak ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بولين غيس موك لي داف لاي لور غان اه داف ماي لور غراول ديديت الاسلام سانتوكو كان كان تراو لا سا باس باس ديديت دا فا ام جانغورو جي فيني كون دا ني نيان نيت ني نانيو غنا فيجيلان نانيو غنا جيل سين ريسبونسابيلتي لولو موتاخ في ني ناني دوخالين دي نونو واي نك الجوما جو جوت نيغي في defal len sen khutba ngeen parta ñu partagé ko ak yéen ku ne fa nga toog sa kër nga mën a déglu liñ daan def ay bés bu ne ku ne jullee sa kër te loolu lañ def boo léegi kon ci loolu la ñuy wëy kon ñu ngi wax ne lu mel noonu moo tax ñu ne bon ñun duñu ubbi te wéetuñu si boo demee ci réew mi ñi ëpp ñii ëpp fuuf waaw julliwuñu parce que xam nañ ne loraange bi mu ngi fi kon nag yaa na yàlla defal tawfiq di ñaanal ñi nekk bitim réew yal na yàlla sàmm leen aar leen ñu ngi leen di encouragé bu baax na ñu gën a am foi na ñu gën a am pas-pas te incha allahu rabbi dinañ ci génn ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla defal leen foofa tawfiix defal leen fa jàmm réew mi yalla fi yàlla dolli jam mbass mi yalla nako fi yàlla gaaw jeexal kon dal loolu lañ doon andi di waxax mbolo mi comme tay ji defe naa mooy woon première aljuma bi njitu réew mi waxé ñu ne bon nag dinañu andi léral bi baax na ci lool mbokk yi kon dal fi non lañu doxale kon dal dañuy bayé ndi ba jamono neex su ko defee li ñuy ragal yépp daxu su ko defee ñu mëna ñëwaat joxé ko ci biir jàkka ji inshallah kon nak wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله